hayya ala salaam laa ilaaha illallaah ahmaduhu subhaanahu wa ta'aala wa adkuruhu bukratan wa asiyyan واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله فصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى اله الطيبين وصحابته الغر الميامين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فاوصيكم ونفسي بتقوى الله وابتغاء مرضاته ايها الاخوه ان الله سبحانه وتعالى xalaqanaa naxnu albashar bi alwaanin wa alsinatin muxtalifa wa jacala dalika aayatan min aayaatihi allati yajibu altafakkur fiha walictibaaru biha wa min xikmatihi an jacalanaa tabaaraka wa tacaala shucuuban wa qabaa'ila linatacaawan bacdama tacaarafnaa ala albirri wattaqwa wa naxnu almuslimiin arsala allahu lana rasulan bi kitaabin mubiin wa aqidatin wa sharia wa shariatin wa qiblatin waxida wa jacalana ummatan waxida wa inna hadihi ummatukum ummatun waxida wa ana rabbukum fattaquun wa farada alayna an natacaawan ala alxayr wa xadarana min magabati tanaasoc wala tanaasau fa tafshalu wa tadhaba riixukum kama amarna biltawaxud waliltifaafi xawla kalimati altawxid wa tawxid alkalima واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ويصف الرسول صلى الله عليه وسلم المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى ولكن أيها الإخوة هناك أسباب أدت إلى الفرقة منها أولا الابتعاد عن صراط الله ومنهجه الذي رسمه لنا وثانيها إحياء العصبيات والنعرات والقبليات wa thaalithuha altaasub didda aw li shaxsin aw fikrin aw madhabin aw tariqatin aw xarakatin aw jamaa wa raabiu hadihi alasbaab takaalubu alaadaa ala almuslimin wa kullu hadihi awaamil saahamat fi xalqi altanaasuc waltadaabur bayn almuslimin wa likay yaciisa almujtamacu baciidan an alfirqati walshiqaaq yajibu muraacaat alusul walqawaacid allati taxmi almujtamac min altasadum فلنتدبر معا سورة الحجرات فهي تضع لنا قواعد التعامل بين المسلمين أنفسهم وبينهم وبين غيرهم وقد علمتنا السورة أولا كيف نتأدب مع الرسول المصطفى صلى الله عليه وسلم ومع ورثته في قوله تعالى لا تقدموا بين يدي الله ورسوله أي لا تتقدموا بالقول والفعل ولا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم ثم تكلمت السورة بعد ذلك عن علاقة المسلمين فيما بينهم بقوله تعالى لا يسخر قوم من قوم ولا تنابزوا بالألقاب واجتنبوا كثيرا من السن in jaakum faasiqun bi naba'in fatabayyanu wala tajassasu wala yaxtab wa fi fi alaxiir qaal fa aslixu bayna axawaykum mbokk yi ginnaaw bi ñu sant yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di tuubal borom bi di seede ne moom rek mooy buur tey képp ku bëgg a jaamooti yàlla jaamu gu mu nangu ci sunnas muhammad sallallahu alayhi wa sallam rek nga ko mën a jaare yàlla na yàlla julli ci moom julli ci ay saxaabaam bokk yi ginnaaw bi ma dénkee sunu sama bopp maa ngi leen dénk ak ragal yàlla ak sàkku ngërëmam mu mel ni nag tomb bi ñu bëgg a waxtaane mooy doomu aadama yi seenu nekkin ci kaw suuf sunu boroom daf noo bind wuutale nu sunuy melokaan sunuy làmmiñ kenn ku nekk am noo mel kenn ku nekk am looy wax mu wuuteeg sa moroom sunu boroom nag teel na noo wax ne loolu li tax mu def ko dafa bëgg mu doon kiimtaan goo xam ne kenn ku ci nekk boo xoolee sa morom da ngay wàll da ngay waaru ci kiimtaanu sunu borom ak ni mën a bindee nga xam ne da nga cee yéemoo ci yàlla waaye doo doo ca xool wàññin doo ca xool ak desi loolu nag moom sunu borom subhaanahu wa taala moo tax mu ne dama leen a bind ngeen nekk ay waaso yu wute def leen ay giir yu wute waaye dama bëgg na ngeen xamante ngeen mën a jàppalante mën a dimbalante ba mën a dundal kaw suuf bokk yi nag ñun julit ñi ku ne xam ne yonent bi muy benn yonent la yónni ci noonu mu indi benn téere mu andi benn pas-pas andi benn yoon indi benn la ne yéen aw benn xeet ngeen te war ngeen a góorlu ba dimbalante ci jàmm ak yiw te lépp loo xam ne moo leen di tàggale yéen jullit ñi na ngeen ko moytu ndax su ngeen ko defee dangeen ngeen néew doole ci seen kanam yi noonu daal di wax ne na ngeen àndandoo booloo ci wax laa ilaha illallah wéetal yàlla waaye na ngeen ànd booloo itam ci boole seen kàddu muy benn loolu moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam doon melal jullit ñi ci ni ñu war a mel suñu melut ñu xam ne ci ñu noonu la waaye noonu la ab julit mbooloom julit noonu la ma rawel nee na fu ñu toll dañuy bëggante dañuy yërëmante day mel ni benn cër rek benn jëmm rek ni nga xamee ne cër ya noonu la ciy nekkee nee na ab mbooloom jullit noonu la war a mel nga xam ne loo ca laal rek ci cër yi wala lu dal ab cër rek cër yi cër si yëpp koy maase yëg bokk yi am na nag ay sabab yoo xam ne su fekkee àndandoo bi demewul ni mu war a demee loolu moo ko waral la ci jiitu mooy lii nu yàlla sant pour ñu ànd ak lim nu sant ci ñu moytoo lu ñuy tàggale daa mel ni ñu baree bari ci noonu jaaruñ ci yoon woowa la ca tege mooy ñu baree bari ci ñun ginnaaw bi yàlla nee li leen bokk gi leen boole mooy diine daa mel ni kenn ku nekk yaa ngi delluwaat di seetaat leneen lu la wuuteeg ñetti wuute la nga ci des ñi naan sama maam sàngam ñii naan man waasa sàngam ñii naan man mi weex ñii naan man mi ñuul. loolu bokk na ci yi nga xam ne ci yi tàggale nit ñi la te yaakaar naa ne fii ci réew mi ak feneen fu mu man a doon boo demee nag fekk lu mel noonu ay nit ñoo xam ne su ñëpp taxawee ba ne ay julli lañ ñu taxawaat fee ne man fëgg seen dënn ne man may leneen may leneen lu bokkut ak jullit yi su ko defee keneen ku nekk wax ko bu ko defee mbooloo mi tàggaloo yi leneen li ci des itam mooy ñu àndandoo euh, bokk na ci bokk na ci li ci des itam mooy euh, mbooloo mi farfarloo gi bokk yi farfarloo dafa bokk ci mbir yi nga xam ne ci liy yàq ab ànd ci la bokk am na ñoo xam ne dañuy farfarloo ba lépp loo xam ne jógewul ci mbooloo mi ñu nekk wala kuréel bi ñu bokk wala tarixa bi ñu bokk wala lu mën a doon loola son donte dëgg la sax dañuy laaj ku ko wax kan la ku ko wax kan la doo wax doo wax li ñu wax lan la waaye da nga naan ki ko wax kan la loolu nag li muy indi mooy kenn ku nekk ginnaaw dégluwoo ku dul ku bokk ci sa mbooloo mooy keneen ku mën a doon lu mën a wax ci lu baax rek nga won ko ginnaaw loolu nag bokk na ci sikk yi nga xam ne moo indi sikki mbooloo mi li ci des nag mooy ginnaaw ñi nit ay jullit nag ay noon lañ ñoom ñëpp dañuy daal taxawaat ginnaaw bi ñu tàggaloo suñu biir ñoom itam ñuy liggéey ngir tasaaroo gi gën a am bokk yi bu nu bëggee mucc ci jafe-jafe yooyu fi ñuy jaar mooy nañu ànd ñun ñëpp nafar sóoratul xujuraat sóoratul xujuraat mooy saar woo xam ne ñun ñëpp def noo wax nit naka lañuy àndeek ànd sunu kilifa naka la ñuy ànd sunu kilifa mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak képp ku ko fi wuutu la ci jëkk ci ci ci loolu mooy ñu ami teg yi nag moom yonent bi te sunu borom teel na noo wax ne yonent bi du yéen na ngeen fexe ba bu ngeen àndeek moom bu leen ko jiitu ci wax bu leen ko jiitu ci jëf bu leen yëkkati seen kàddu ci kanamam bu leen waxee ni ngeen di waxee ci moom bu leen ko joor kenn ku ko soxla ku nekk na nga ñëw toog xaar ba mu génn ci yow waaye bu kenn ne dama koo soxla di ko joor waaye bi mu noppee ci foofu mu tàmbalee ci saar wi dafa ñëw nag ci suñu diggante ñun jullit ñi wala ñun waa àdduna naka la ñuy def ba jàmm mën a am ci suñu diggante loolu nag la ci jëkk mooy bu kenn di xeeb sa moroom bokk yi xeebante bokk na ci jafe-jafe yi nga xam ne moo andi moo andi moo indi li xew ci jamono mooy dafa am ñoo xam ne moo ñoo xam ne dañuy xeeb seen moroomi kuréel moo xam tariixa la moo xam aw awaasa la moo xam lu mën a doon sunu boroom teel naa wax ni loolu bokk na ci li tasaare mbooloo mi kenn ku nekk war naa moytu di wax ne man mënum lëmm moo xam ci sa mbooloo moo xam ci sa jëm bopp la ca des itam loolu moo taxoon Serigne tubaa radiyallahu anhu wax ne doomu aadama sax daa wërta sañ a fëgg ab dënnam di wax ne man la ndax li tax mooy daa xamagul li fekk demul yomal xiyaam bañ àttee ko ba ne ko sa kër mooy àjjana na te yëkkati loxoom wala muy fëgg dënnam naan man la kon su dee soo melee noonu rek booy boo nga joxañ sa bopp te xam ne seytaane jekku na la xam na ne yaa ngi ci ak réer bu méttee métti ba ca tegee nag mooy nanu fexe ba bu kenn xeeb sa moroom waaye bu kenn di sa saboote sa moroom ci aw tur bokk yi ñu baree bari ci nun ci kuréel yi ñu nekk wala ci kër yi ñu nekk wala ci waaso yi ñu nekk ñu ngi sàkkal ñeneen ñi aw safaan di leen tudde neneen boo xam ne nii kenn ku nekk masalan tey boo demee ca tijaan ya wala ca murid ya wala ca wahabit ya kenn ku nekk boo muytul sàkkal nga sa morom aw woo xam ne ca seen biir moom la ñuy wooyee ña ci des muy turu saboote ak leneen te suñu borom def nu koo tere ba ca des mooy nañu rafet njort bari na lu tasaaroo ci mbooloo mi yàqu fii te li ko indi mooy ñaaw njort ñaaw njort bokk na ci li nga xam ne moo indi li ca des itam mooy bari na lu yàq ci mbooloo mi te mooy ay xibaar yoo xam ne kenn du ko topp ba mu waaye ku ci nekk rek da nga koy dégg jot jàttali ko sa morom du nu xaar ba mu wér su ko defee nag la muy jur mooy day tax ñeneen ñi day tax la muy jur mooy day tax tasaaroo am ci biir mbooloo mi ndax boo moytuwul sax dana jur jiyee jim jur ba war jur ba noppi ñu door a xam ne ndeke mel demewut noonu wala ko ko doon wax waxewu ko noonu kon loolu yëpp sunu borom teel nañu ko la ca des nag mooy li xew ci jamono bokk yi te mooy am ñoo xam ne fu ñu toll toll dañuy yëddu seeni moroom bokk yi diggante jëw ak yëddu sunu borom tere na ko fii waaye bu ci nekk dafa jege ak moroom ji bari na koo xam ne day toog ci ay jotaay nit mooy jotaay yi Serigne Touba ti tudde jotaay yu texee di lañ fay toogee ba moytul ay nit lañ fay toogee wala am mbooloo ku ci nekk yaa ngi toog di toogee sa say say say mbokk wala say moroom waaye am na koo xam ne soo moytuwul dafay romb di di yëdduwaale ba jëlee fa baat boo xam ne day wax ne mbooloo sàngam fekk naa leen ñuy wax nangam ak lu wax leneen bokk yi yooyu yëpp day wane ne lu baree bari ci yàqu-yàqu yi lu lu lu am la lu am la loo xam ne moo taxoon sëriñ Touba radiyallahu anhu joxe na fii bind bu am solo bu mat bàyyi xel mooy dafa am ay taalibe yu nekkoon njaareem ba ñu nekkee njaareem sëriñ bi nekk ci beneen kees mu dégg leen ñuy wax di soowoo naan tijaan yi lii tijaan yi laa ba ko sëñ bi déggee mu mer lool génn daal di yëngu. ni ana ñu nekk foofu ñu nekkoon ñun la mu ne li ngeen di wax ñu ne ko ñun de dañuy rek di wax su nangam ak nangam mu ne leen bu leen ko waxati mukk ndax yéen du ngeen di ay juif ndax juif yi xam ngeen ni ñooy wax ne nasaraan yi newuñ ci dëgg mu ne du ngeen ay nasaraan ñoom it du ñuy nasaraan ndax nasaraan yi mooy wax ne ñeneen ñi nekkul ci dëgg bokk yi ñun ñëpp kon ay jullit lañ dañoo war a joxante loxo waaye nag penc mi bu yàqoo ba jafe-jafe am la ca war a topp mooy ak defar bokk yi ak defar moo jafe nag lool tey sunu borom boole na ko ci yi muy digle fii mooy koo xam ne bu yëngu-yëngu amee bu yàqu-yàqu amee day jóg defar mbooloo mu ma doon yàqu-yàqu du ci du ci mën a ñàkk waaye na am ñu taxaw ñoo xam ne nag seen mbir yépp mooy defar loolu nag dañ ciy jaajëfal Cheikh Mouhamadoul Mountakha te di ko ñaanal sunu borom gën ko dolli kàttan ak wér ku ne xam na ne def na ay taxawaay yu am solo ci biir réew mi ci biir bokk gi ci defar ak jubale te muy loo xam ne ñu baree bari teewoon na leen loolu yëpp di wone rek ne loolu boobu taxawaay lu mënta ñàkk la ci aw xeet suñu bëggee am jàmm bari na luy xew ci réew mi mu àgg fenn fi su ñenn ña taxawoon ña war a taxaw taxaw defar ko rek du agsi foofa kon nag mbokk yi nanu maase ñun ñëpp ñaan sunu borom gën ko dolli kattan gën ko dolli wér moroomam yi nga xam ne ñoo fi nekk tey liggéeyal diine yàlla gën leen a taxaw gën leen a defal àddina ak àlaxira yàlla na yàlla sàmm nu yàlla dimbi nanu defal yiwu àddina ak àlaxira الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونتوكل عليه اللهم صل وسلم وبارك على الحبيب المصطفى وآله وسلم أيها الإخوة رأينا أن الإسلام دين يحث على التماسك والانسجام الاجتماعي بين مختلف الفئات في المجتمع وباتباع الأوامر من الإصلاح وتجنب النواهي من استهزاء قوم بقوم والتعبير بلق والتعيير بلقب يكره والابتعاد عن كثير من التهم wa tathabut min sixati alxabar qabla tasdiqi wa tajassus wa tataabu awraati nnaas wal bu'di an kulli ma yajraxu mashaa'ir annaasi yataxaqaq bi wa bidalika yataxaqaqu al amnu wal istiqraar wa bittaali binaau xadaaratin insaaniya taquumu ala alqiyam wa minha almawaddatu wal ixtiraamu almutabaadal rabbana taqabbal minna innaka anta samiu alalim wa tub alayna innaka anta tawaabu rahim rabbana ighfir lana wa li ixwanina alladina sabaquna bil iman wa la tajal fi qulubina ghillan lilladina amanu rabbana innaka raufun rahim allahuma inna nasaluka an tajmaa kalimatana ala alxaqi wa taqwa wajcalna allahuma bi xablika mustamsikin wa bi sunnati nabiyika muctasimin allahuma salli ala sayidina muhammad alfatix lima ugliq walxatim lima sabaq nasir alxaq bilxaq walhaadi ila siratika almustaqim wa ala alihi xaq qadrihi wa miqdaari alazim waltuf bina wa qawwina wa kun lana wa xablana xusna alxitaami rabbana wa sallin ala annabi wa sallimi waqdi bihi xaajata kulli muslimi